impose ni ma lii nga luwee maa lànk lu neex lay loué ken mom luma dara monsieur le ministre li nga xamanteni ni la teg moy bisse bi la jox moy bisse bu jëm ci mirum mbalit mi ya 12 milliards lañu gis waxam mom lañ ci def mais monsieur le ministre il faut nga wax ministre finance gis nga bu ngeen bëggee jàmm dëkk bi set ni ñi nekk ci jàmm il faut que ngeen jël xaaliss bo xamanteni dañu ko jagleen mbalit bi ndax 12 milliards mom lañ ci def mom ngeen mom ngeen joxe te yore ngeen bor 7 milliards la loi de finances bi jur nga 3 milliards dese fa 5 milliards bese 12 milliards boo di joxe avance 3 milliards dese 5 milliards kon 5 milliards moo lay dese mais 5 milliards yooyu noonu ngeen war a jël maanaam daanaka lu mat 1 million 700 mille tonnes 2020 mais kooku mënu leen ko buñ la ko waxloo tamit xam nga ni buñ la ko bëggee def loolu mënuloo ko ndax 1 million 500 la woon 2019 2020 bi 1 million 700. da ngeen yore woon bor 7 milliards jóge si 3 milliards loi de finances rectificative bi tey ji 5 milliards bu ngeen naree fay bor yooyu mooy des ci li nga xam mooy 12 milliards yi. kon loolu il faut que ñu wax askan wax président de la ministre des bu ngeen bëggee dëkk bi set dëkk bi am jàmm liggéeykat yi mën a ne si jàmm mbalit mi il faut ngeen jël xaalis ngeen fay ñi nga xam ñoo ngeen yore seen bor te bàyyi seen caaxaan yi ndax mënu ma nangu dëkk bi xeeñ xunn tax rip ba pare ñu bëgg laa ne la maa fexe xam la ne xam na ni racassement 2 président de la république 2017 dafa dajale won ñi nga xamante ñoo nekkon zone de captage ñu daani seen kër ñi nga xamante ñoo nekkon maanaam si tobacco ñu daani seen kër président la joxe ndigal ñu joxe ay bon ba fi may wax ak yow racassement 2 ba ministre des finances ñoo ko bloqué dugal fa ay armée kenn mënu fa dugg te ñooñu ba léegi amuñu ay kër dañuy luwe kon bëgg naa ñu jubli si loolu ndax ñooñu dañoo daane woon seen kër ñoo xam ne fii la nekkoon ci weden bi mu nekkoon ñoo xamante ni président la joxe mais le président la république joxe Macky Sall joxe ko te mënuñu ko appliqué lan lay jariñ député yii fi nekk président de la République leen may leen ay terrain ba fii may wax ak kenn jotu terrain am na loo xamante ni il faut que ngeen nangu pour que xam ne liggéey bi dafa yeex